jot mi wala si xibaar yi la mu ci dikkaat rek mooy anam yi nga xamante ni noonee la jotee ak moom Ousmane Sonko mu ne ci it bu nu bëggee ak ñot di ñeel plainte bi faw usmaan Sonko waat ci alxuraanul karim lenn ci kàddoom aji saax ñu teewlu ko Haj Ndeti Diop mosuma toog ak Ousmane Sonko di ko wax lu jëm ci sama vie mosuñu toog sax di am ay yenn paroles yoo xamante ne day jëm ci man say kese la say ak man bu fekkee ne mosul say ak moom na na jàpp ba set teg kaamin waat fekkee ne mosul seq ak man waxatuma sax nañ lu bëri loo xamante ne ñëpp a ngi naan viol viol répété say nañ xamante ne man mii sax jàppuma ko mais bu fekkee ne ëpp loolu waaye bu fekkee ne mosul say ak na waat teg kaamin jàpp bés bu ko defee man dinaa retirer sans plainte lu ma ci góobee ma gar mais ta foog naa ne estant bi ñu toll Sénégal ton na si moment boo xamante ne ay moo xas na ba am comme noonu nuñ koy waxee il faut que dëgg bi feeñ. dëgg googee le maire bu euh, Kaffrine euh, soxla Abdoulaye villan ca mu ne kenn mënuñ cee dimbali lu may justice bu Sénégal lu ko mooy dal ak jàmm du fi mësaam ci réew mi ñu déglu ko monsieur le maire bu Kaffrine Abdoulaye Wilane ak Oumar Ndiaye. faaw tuuti làmbaay ñaaw ci xew yi fi jot a jaar ci fan yi la ñu génn waaye ndax mu sedd mujj cee ruus. ndax taxawaayu kilifa diine yi moo di gis-gisu député maire bu Kaffrine Abdoulaye Wilane. li ñëpp doon ragal. xaw ma dañoo xeeb xel ba mu bëgg lakk dagg jotee bu am ci diggante janax ak si ndax lay niru. ñi di ko awti awtee ka ëcc. ba mu nekk loo xam ne ba naroon naa këpp gaal. ànd ak borom gaal gi ak na ci gaal gi yëpp nërmeelu. lii fi xew fan yi di niroog xalu ndéef ndax dal na giif na waaye bu safara dàbbee ci dàgga ba mu sël-sëli ñu jóg fay ko ngelaw li ne teg ku foog ne ca roon dàgga ja xamut xal wuy suus mel ni xalu ndéef mën ngay nax sa bopp moom député maire bi di xam ne ne jot nag ñu xam fu dëgg féete bu dee bëgg nañ jàmm sax ci réew mi amul jàmm jeex na bu dee Sénégal réew indépendant la démocratie la li xew diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ku tooñ ci ñoom ñaar Sénégal war na koo xam yoon dal sa kaw su amut kenn xamut fu ñu jëm ëllëg ku wal mburu tudd dëkk ndax jàpp ne ne yoon war naa leeral ñi faat bakkan ak a ronqi bagage yi jàmbur lu mosta am ci réew su amee a leeral jëm bu ëllëgatee ñoxoor njaay ñu toj sa kër nangu sa alal nangu sax sa jabar ak sa lépp fi mu toll nii li xew nag jot naa am ab jàng jàngat bu rëy ci réew mi ndax jàpp na ne du kenn ku ñooñ politique ñu bëggoon a suruxal Sénégal ci guuta parce que ñun waruñoo mujjee puso bi mu réer gannaaw indépendance kon nag ñun ñi politique na leer ñëpp ne àggoon nañ ba bëgg a dugal Sénégal ci guuta ñàkk a mën a laamisloo ak mën a waxtaan su ñàkk a nangu dëgg ak ak ak yelleefi keneen Kaffrine Omar Ndiaye RFM jërëjëf Omar mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko ba tey ak gis-gis bi ci soxna yu majorité présidentielle gi am ñoom danoo li nga xamante ni ak jàmm ak dal la ñuy woote wàllu viol siif jigéen crime la fii ci Sénégal dañu ciy déglu euh, kenn ci ñoom aji mbex gan ko kanute ñu teewlu ko képp ku siif xale wala nga siif jigéen loi bi dafay daan sa kaw ñu jëlee ko ci délit def ko crime crime mooy loo xam ne tey euh, loi bi di nga tëdd lu mu fukk ba ñaar fukk at wala bu nekkee da ngaa siif siif siif ku jigéen wala xale euh, mu ànd ak rey perte bakkan mën nga tëdd sa guuru dund kon loolu loi boo xam ne la ñun jigéen ñi ñoo ko xeex assemblée national ñu voté ko à l'unanimité ñu voté ko la 30 décembre bi nga xam ne euh, moom moo moom moo jàll